mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah Touba ca kanam dellu siwaat fas yéene ànd ak yéen ci geneen Touba gi nga xam ne ni jar naa bàyyi xel lool mbokk yi ñii de mooy ñi wuyu si wooteb Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul te yaakaar rek tax ñëw dëkk ci sancaan yi yittewoo lépp ndox courant rabu fajukaay masin walu mbokk yi yaa ngi am xel yaar ci lan lañ lay defaral ndogu tey mbokk mi sa xel a ngi werante tey ban yëre ngay sol yaa ngi am xel ci ban tissu ngay jënd ak ku koy ñawal ndax xam nga ne am na ñoo xam ne xalaatuñ sax ne ñoom danañ am lu ñu ndogoo tey mbokk yi ñu ngi nii il manque de tout yittewoo nañ lépp yitte gi ñu gën a yittewoo nag mooy yittewoo ku leen ba xel ñooñu la Touba ca kanam ne mbokk mi sa armoire juróom benn bâton la yaa ngi koy yabi yëre ba mu fees bëri na yëre yoo xam ne boo ko solee doo ko solaat waaye yow mi dul fóotlu nag ndax am nga ne am na ñoo xam ne nii seen xel du dem sax ci outil piis bay ñawlu ji ndax xam nga ne am na ñoo xam ne ndekki boole wuñ ko seen programme bu ñu xëyee ñu ngay lijjanti saa yi mu sotti yenn saa mu yéex a sotti yenn saa dinañ lijjanti ba takku san jot te añ ba du taaje na la leer ne bu sottee ci lañuy ñuy faggu reer kon mbokk bi bu la yàlla joxe lu la ëpp dala séddale loo ñii de yitte woon nañ ku leen bàyyi xel yitte woon nañ ku ñëw ci seen màkkaan yi yitte woon nañ ku leen defaral ay bërëbu fajukaay yitte woon nañ ku leen utal ndox waaye yitte woon nañ it ku leen bàyyi xel nañ dem ngeen xool ne lii ñu leen di jox ñoom gëmewuñ ko sax mbokk mi te yaa ngi tëj sa armoire bi sa doom tëj armoire sa sët tëj armoire ba mu fees dell nga toog ci taatu garab gi di jàmbat bàyyil xel mbokk yi mbokk yi. tumuraanke nañ torop fii mooy tawfeex ndindi tawfeex waaw. sama sama lu lool yi nee na ñëpp am nañ amul eh. misras mi abijaayi xayri man إلهي مسكني بابات مثل اسمها بجاه خير من نبات وسليا علي عبدنا الصلاة والي وسبي سوي السلات وكل من قدمني أو سارا فنجني واخلق له أو سارا وكل من عابني أو مالا إلا يفعل سخودا أو مالا وكل من ستمني أولاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني عسى جميع العالمين ولتقضي عسى يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا waaye nga suñu bopp yi mënuñoo am jàmm bu ñu xëyee dañu yenu ba jant bi so suñu gone gis nga niñ tilimé da bala ñeenoo sàng dañoo son amuñu hôpital bu la dara yëngalee dangay son fi mu nekk ni sareet la ñuy tàkk mën nga bala ngaa egg sax mën ngaa gaañu sareet la ñuy tàkk teg la ci tumburanke nañ torop ndox ndox courant ak machine wol sëñ bi fii mooy Darou Abraar ci néew gi doole yi daanaka fii lañ féete son nan lool daanaka matuwaay yu bëri amuñu ko fii jigéen ñi dong gën a sonn yàlla xam na ne ku fi matu di am doom sareti mbaam yeeg lu ne moo fiy nekk du ndox mi du courant yi ñoo féeteeg sàcc yi ak saay-saay chaque jour dal suñu kaw ndax suñu néew doole li ñu fi yàlla dénk ku néew chaque jour ñu bëgg koo yóbbu saa yu génnee ñu bëgg noo lor ndox mi jigéen ñi sonn nan lool matuwaay dëkkuwaay yaa ma gën a xam gis nga ko nii. yaa ngi dégg bu yàlla ji dee taw fu ne la ñuy daw di làqatu ji. saay saay si nag heure boobu la ñuy gën a jéem. ndax euh, wax dëgg yàlla bëriwul fii moom man nag du ma ne ñëwuñu fi waaye man daanaka man li ma gis rek laa mën a wax muy bëriwul fi daal. ñun daal ku ñu dimbali ñu jël te yow mii day wax ji na fi yàlla indi ak ñii nga ñu xoole ba di ñu ngi lay ñaanal yàlla waa Touba ci kanam li ngeen di liggéeyal yàlla ak yonente bi yàlla na ko Serigne Touba gis. te dana ko gisin nag sant nañ leen bu baax xamal ne daal fii daal ku ñu dimbali ñu jël. courant beeg ndox mi daal moom nii ngay seen ak dispensaire yi loolu lépp soxla nañ ko te dara amuñu ko waaw coket yi itam sunu soxna yi gis nga rek xamal néew doole gi moo waral lii doole yi moo waral lii ndax njaboot gaa ngi nu àkkate amuñu lu leen jox moo taxit bi yàlla indee sama soxna laa koy jox ndax mi ngi ma si doon sonal te ëmmuk a ah, ah, léegi bi ñu defee nii nag xam nga dama nga daal di jox soxna si rek waaw léegi soxna si am ah moom it xam nga ne xéwal la rek fi mu daal ginaar yeeg yamuy àndal moom moo nu dese moo si def waaw Touba si kanam bu ngeen ñëwee daal xamal leen ñi ngi nii rek gis nga ko. bu ma sañoon Touba ca moom day dem ca kanam rek. te ñu leen di ñaan na ngeen dimbali nu ci ndox itam. ndox roq si as roq la fii rek. waaw maa ngi ñaan ci barke sëñ Baara Mbacke itam ñu ma de ah yàlla jox ma ma may def ba may participer ci ci Touba ca kanam. kontaan nañ lool. yàlla na xewal gi yokku waay.